Inch'Allah, moi Je am solo dafa moom ma boor bi ma boor bi laaw la et la cohérence et la pertinence de sa démarche et de ses propos de faire loo xam ça inspire du plaisir mm-hmm. à l'écouter mm-hmm. mais surtout à disséquer mm-hmm. le raisonnement pour toujours toujours toujours. Mm. am fi muy cëppeel parce que saa yu rek day taxaw. bu mm. cëppeel mu mu jéng wala mu lii. Mm. macha allah. Euh, sëñ bi ñu di la gërëm. ñuy la d' abord gërëm la. sant la ziar la. ba ñu suñu way jur ju sedd ji nga xam ne. ci moom la ñu jóge yal yàlla ñu yokk ay leer yal nañu yàlla gën a taas ci barke nit yow nga xam ni tey yaay xalifa yàlla na yàlla gën a dëgëral sa toogaay sànga la malaan sutura yokk la yéer la aar la musal la muccal la ci euh, toujours ni Serigne Mansour ñun dañ koy bëgg

loolu mooy finalité lan mooy jëriñ lan mooy baax ci askan lan moo koy jëmale kanam may wax ni dama koy gërëm ak a sant parce que wax na dëgg yàlla teg nañu nattu ñu nangu ko nag mu toll ci ñu ma bëgg dalal seen xel dara mettu foofu dara diisu ci dara méttiwu fa dara diis te dama ci génn oyof tol moo tax aw ma rancune aw ma parce que mënu ma wax ni yàllaa ma ko teg ba pare may di koy may naan diw la boobaa man maa ngi bëgg a yàlla wala maa ngi bëgg a di sama bopp te duma may kenn nag muy dox suma digganteeg yàlla mm-hmm. mais li ma neex ci sëñ Mansour

maam sama turandoo ki nga xam na moom laa gëm su yàlla ak yonent bi na la fay sa boy bi parce que man nag ma xam ko négocier du mm-hmm. ku ma noonu tim la waaw <laughs> may wax aussi nii fit gi mu ci def ak fulla bi ñu bari dañu waaf ba mu mettee muy ñëw kaso ba saa yu nekk yedd la defal la dooleel la wéttali la ba pare nag am lu mu la jox sa uut yi ba léegi benn bi des na ah. uut <laughs> yi ah, diir sama njaboot mu taxaw leen sama way jur bu jigéen sama soxna tabaskeeg lu ne yëfam ñëwal mënuma ko fay yàlla ko yàlla fay moo tax biñ ne ma sëñ Mansour dafa bëgg a ñëw moom di ñëw ñëw ñaari yëf laa doon wut si jëkk bi mooy ma am chance bi ma wax na dëgg bi ma génnee biñ demee ma seet sama yaay ba nuyu ko mhm. sama turandoo laa dem ziar mhm. mais tey ki may teg ci te ziar mooy taawu sëñ Babacar ma mu ñëw man maa ñëw ñii ñoo àndoon mhm. ñoo àndaat ñëw fi ñëw fi trois heures du matin la egg Tiwaawan dañ toog ba ñu salaatu. Allahu akbar. donc euh, c'est pour dire le sens ma ko doo ñëw ñun ñooy ñëw. Mm-hmm. parce que suñu ñëw bi ñaari ngëneel yooyu am ci. Mm-hmm. ziar si. mais surtout gërëm ko sant ko nag parce que dafa def wareefam. Mm-hmm. yal na la yàlla fay. ñetteel bi mu bokk ci parce que ba mu jógee ci loolu. su fekkoon da ko denc sax du kii mais bañ jógee ci seen réunion boobu da ko fasaare wax ko sumay xarit samay xarit wax ma mais xam nga moom comme ni ma xamee man ci nguur laa yaroo mm-hmm. man doomi surtout Senghor laa mm-hmm. doomu Abdou Diouf laa mm-hmm. yàlla daf ma wërsëgale ba may am fukki at ak juróom ñett laa bokk directoire national dugg comité central du parti socialiste 1984 ba léegi maa ngi bureau politique bu parti socialiste ñi nekk ci parti bi yëpp léegi mhm. dañ ma fekk ma nekk membre du bureau politique ba ñoo dugg ci parti mhm. loolu la yàlla dogal ma xam nguur mhm. donc euh, bett ma day jafe tuuti mais moom xam na li tax man doomi góor laa soo mu bëggee wañ sama wax rek ma bañ tëj nañ ma marché ma bañ ñu ma dem kaso man dara uluma kaso kaso ay nit doo nga fa ne eh, dem kaso dem ak sa des ak sa ngor moo gën dem kaso dem ak sa dignité te soo demee kaso nag wéeru ci yàlla kaso ba oyof toll comme ni mu ko waxee man kaso bi dañ ma dàq ci biti biñ nee ma kaay génne dama leen génn parce que ñaanu ma grâce ñu day may génn génn ma fet ñu mujjee taxañ samay bagage taxañ sama yaram sànni ma ci biti xam nga ni am solo mooy ñun dañu am chance dañu am ñii ñu am ñu mel ni ñii mënoo gëm waa kër sëñ Babacar di am problème ah wala bon sa ngëm des ah. des donc loolu moo tax tey ñu ñëw fii dem ziar suñu way jur wëri tedd ku baax kële ku maandu ko rafet kële nga xam ne moom la ñëpp di wayaka sant sang baa nga faas soo ko ñëw nag gërëm sëñ Mansour sant ko ngir lépp li mu def lépp li mu tax depuis lii am day wax day bind day xuloo te lu mu wax da ko teg ci dëgg te kenn du ko teg mm-hmm. man loolu dafa mu ma neex ci plaidoyer mm-hmm. lu mu wax kenn du ci teggi baat au contraire su waxee sax gars yi dañuy wër wër rek dem seen yoon mm-hmm. daañu tontu ñenn ñi mais kenn du ko tontu mm-hmm. mm-hmm. te c'est important donc ñu sante ko yàlla en tout cas sëriñ bi ñoo la amee bor ñun nag ñu àndal ñi ñun Ali Koura ak Badara gërëm nag suñu rakk ji suñu dafa dugg ci xeex bi de ci xale yi tuuti xam nga li ma neex ci yëpp mooy yow yow la mm-hmm. ak ku ma dul tudd ak ku ma dul tudd mm-hmm. rek yéen fës mm-hmm. xam nga ñu leen ci fekk si xale yeeg jigéenu kër gi xale yi jigéen xale yi ak jigéenu kër gi